xool général Malika ca ndënd ya eh woy waaw waaw neex na de maar lii neex na ndeysaan jëlal lii eh woy waay bëgg fàllu na puus waay e waay e waay sele ngoog ndeysaan waaw waaw mbër bëgg naa la. waaw maa ngi maa la raw gars yi ndaxamu. mbër mbër li ngay fecc neex na. waa gis nga bëgg supporter yi bëgg rek mu leen gars yi. fecc bi nan la tudd. ah fecc bi nu mu tudd. kii mooy fecc Sélémène ràccee gi gin Sélémène. waaw. ana waa campement. waaw ñu nga fa rek di leen namm rek yéen. Ah. tey ngay door a bindu tey ngay door a ubbi. waaw maa ngi door a ubbi tey. di ñaan yàlla jël ko rek. waaw ah, ah. ponkal yi jaaxaluñ la daa mel ni. waaw yàgg na ñoo laala ñuy xamante nañ de. yàgg na. waaw si daan ci demal ci combat bi. combat ngay maar ca biir. ndeysaan mais Sara li muy fecc neex na maar. non dafa mën a fecc. Ah. dafa mën a fecc. daa dégg galañ. te Sadio Mané la indi sol bu la neexee numéro 10 waaw waaw ma ca combat sol na ko takk na ko wañ da koy wañ wala ràcc na bañ de da koy yóbbu ca xabal oh! ay waay maar lii rëy na di xool bi saaru jël maar. eh way ndaw xale yi dañoo mën a bëri. Babacar fii boo mënta bëri bu fi. waaw lii mooy bëre. boo tàmmul bëre bu fi ñëw. boo tàmmee benn combat bu fi jaar. dëggantaan ay bëre kat a fi ne. mbokk yi suivre Leewtoo TV fu ngeen mën a ci àddina bi tey nag ñëw ngi arène nationale kon saison bi ubbi na le premier octobre tey le 27 di dimanche jag woote fi teg fi 2 millions kii ñu toogal nag mooy Malick Ngom Malick lamb ji ubbi na ñu ngi lay nuyu di la ziar di kontaan ci gisaat la. Euh, Babacar fay naa la di nuyu yàgg mi nga àndal di nuyu waa Leewtoo TV ak amateur yi leen di seetaan ñëpp euh, c'est vrai que lamb ubbi na moo waral suñu teewaay fii tey ci woote Jax mi tegal mbër yi tey 2 millions. mais tey nag lamb ji ni mu bindoo nii 16 mbër lañ jot am na ci ay ténor nag parce que mel ni général Malika mel ni Moussa Ndiaye Selemele Ndiaga Doole ak yeneen yoo xam ne champion lañ ñoom def nañ seen warugal dem renouveler ñëw bëre si. te mbër comme loolu la da nga war a bëre ji bu affaire bi tijjee rek foog naa war nga commencé amatoo looy xaar. ñaata mbër ñoo bindu. tey fukki mbër ak juróom-benn bindu. lan moo tax saison bi ubbi le premier octobre. ñu dem ba sa waa maanaam weer wi di waajantee sa octobre bi ñu ne licence yi vignette yi amagul pour licence yi mën a disponible. bon man fooguma problème bi nekkul problème mu vignette man dama jàpp ne problème yi xëy na parfois dafa am fu ñuy négliger parce que euh, écrit bi war a affilier loolu vignette soxlawul xaar vignette. depuis le 1er octobre bi responsable écurie waroon nañ dem affilier vignette yi bi ñëwee mbër yi ci boppam mooy ñëw indi licence am ñu renouveler ko mais mbër mi tant que écurie bi affilié wul même boo ñëwee aussi mënoo affilié mënoo renouveler donc il faut que responsable écurie yi dimbale mbër yi bu saison bi ubbee ñu profité dem affilié nga xam ne li des ci mbër mi lay dese léegi man dama foog ne loolu bokk na ci parce que am na mbër xam ne am nañ lépp mais seen écurie ay tardé renouveler mu waral teewuñ tey. waaw loolu bokk na ci waaw. kontaan ci yow Malick. merci Babacar. waa Ndiaga maa ngi lay bëggee. Babacar maa ngi lay màggal. Ndiaga da ngaa si tey. waaw damaa xar si mat mbapat si wu ma. kañ nga gëj a def lii. daaw. yaa ngi doon mbapat da. daaw maa ngi doon xar mat si àll bi. am na kon am na loo jot a loo dajale daaw ci mat. daaw am na lu ma yaa ma gën a na lu ma dajale tuuti mais bariwul. tey rek gis naa fi général Malick gis fi Serigne Ndiaye numéro 2 ay yeneen ponkal est-ce que dina yomb ak ak ñooñu. waaw lamb la fii benn lamb yombul ñooñu bu ñu winewul woon sax lamb du yomb ndax lamb yëfu góor la ko waa que le meilleur gagne combat yi na neex ñun combat yi neex lañ xam ñaar ñi buñ dee da nga xamante ne mun nañ daanante loolu mooy lamb amul leneen mais lamb du ñëw ñu teg benn favori rek na mooy daan ñëpp loolu du neex lamb la rek jeex na doom yaay nekk si jàmm waa cumukaay li daa wéet kaay kaay waaw lii ñaxam lan la yàgg maar ban ñax la maa la lay waaye sa waaw ñu lii ban ñax la. waaw ña ña rek. ma ne ña ko yokkute la rek. waaw. ay sondel. yàgg xoolal. aw dongu laay siin cay yàgg. bu la neexee waaw. eh waay Aliou Badara Diouf defal lu la neex kay. waaw waaw. soo bëggee dégg dëgg tey Alioune Badara Diouf jaaxal na ko bëreeloon na ko jox ko avertissement Alioune Badara Diouf bëreeloon na ñaka doole jox ko ba pare di bëriwaat ci koom ci wéy da ngay tey tey Alioune doo ci génn Alioune fii boo fi génne dina ma jaaxal. Aline fu mu jëm oh làq nañu ak sooba wër na ko ñëwal nii toppal ma loolu maar Aline tey foogu ma nga génn ci de tey jii day Aline boo ci génne dina ma jaaxal Aline foofu doo fi génn wala Aline de Aline de nee na du daanu waa Aline Badara Diouf mii yàgg mbaa xam nga ne Badara la tudd mbaa du Alioune Badara yëpp dañuy dëgër. Ah, du ma yoroon jaasi ja Alioune. waaw ah, nuru na ko ndax saa waay war Alioune borom jaasi ja. te li ma leer bu defoon li njëkk a doole ba tey daan na ko. non doole day feeñ Babacar. su waroon njëkk a doole ndombo daan na bu yàgg. sànq njëkk amul Njaga doo jeexal lii daanoo gudde kat app amul foofu wala ak son bi waaw eh na ko yëkkati daan na ko awoy ah daan na ko c'est normal dang di jàmbaar sa waaye kon daanoon nga bu yàgg grand laay ngi mooy président bi yaay président bi yaay président bi <laughs> grand laay maa ngi lay bëgg. maa ngi lay siyaar baax baax baax. am nga jàmm. waa am naa jàmm baax. tey làmb ji ubbi rek ngeen ñëw toog mu mel ne da ngeen namoon làmb. waa dañoo namu làmb waaye xamoon nañ ne làmb ji du neex. waaye konka suñu deret la te ouverture la dañuy ñëw rek defoon nañ ko daaw fekkee ren defaat ko encore ren yàlla may ñu fekkee déwén waaye xamoon nañ ne ne du neex waaw man de xamoon naa ko. ana soxna soxna yaa nga fa. dégg naa yaa ngeeg ñaar. waaw bu ñetteel laa bëgg après gàmmu incha allah waaw. non garaawut. nguy bëgg naa la. Babacar fay na la a baax. nguy jël fan si club Babacar. waa Leewtoo waa ragaluma loolu de. waaw du mën a ñàkk. waa arène bi gis nga xam nga comme tey moom mooy première ouverture bi. defoon nañ ko daaw yaakaar na arène Senghor. ñun nag xamoon nañ ne maanaam du bëri ay lutteurs quoi mais animation bi Mbengue ak Mamo jeex na doy na sikk jeex na tak Pape. <laughs> mais Pape nag yow parisien nga te man waa Real la wala. non man moom mm, mm, <laughs> catalan la quoi. ci loo ne. waaye naa sant yàlla alhamdulilah. tey lamb ji nu ngeen ko gis ni mu mel nii. waaw lamb ji moom maanaam macha allah quoi mais nag bu ñu sañoon lamb ji du mel ni moom wax dëgg yàlla ay amateur lañ mais niñ gisee lamb ji moom neexuñu wax dëgg yàlla waaw neexuñu moom. sérieux ana ñoom jiga ana jiga. Abdou Jiga nga ne la toog Abdou Jiga nga ne moo ko si kanam. waaw waaw amul problème dama <laughs> waaw ñu ngi la gërëm bu baax a baax waaw du nuyu waa 100 pour 100 Babacar bi yëpp du nuyu ñëpp aw ma seen fay waaw ñu ñoo la fa ñu ñoo ñun ñun ñoo amul sa fay gaa yëpp ñu ñoom guy joon gaa yi ñoom laay président Cheikh Ségaré Abdou Touré gaa yëpp jaajëf Cheikh maa ba a naa ci yéen a kontaan moo que jox ñu soow <laughs> bu baax baax di bëggee fan si club Babacar bi yëpp waaw di lay siyaare bu baax di wax ne si liggéey bi trop yàlla na yàlla defal jàmm rek. ndeysaan ñaari mbër yaa nga ca final ba moom Général Malika Général fàq na ko war ko da koy daan da koy bañ na de Serigne Ndiaye bañ na Gorias bañ na Gorias bañ na. tey première sortie nga ñëw def final daan Seral Malika. waaw dañuy sant yàlla kenn suñu bu baax di ngeen yàlla suma combat bi yàlla may ma si ndam bu baax di gërëm suñu mbaam Tapha Gueye ak jabaram moo jaraaf mhm. suma gars yi di leen sant bu di leen gërëm maintenant mosul fay mhm. maa ngi sant ñëpp ak ah. sëñ mhm. yaay gërëm par abdu ñing di gërëm kenn ko xam ne ni mooy garmi na yaaññ wala mhm. seen mbaatu bi lépp yaaññ na macha allah lépp yaaññ na waaw lépp yaaññ na di seet ñëpp ñoom Sall Bara Ousseynou xam nga Obala Mbaye Sène maam Samba maa ngi seen mbaatu bi ren da ngaa mel ni ku décidé ci mbapat mi de ku nar a décidé wala non non man moom saay hmm. man chaque jour nii laay ñëwee a ah. waaw dama ndigal lay xaat ñi ma dafa ma def tere ba mbaay ñu gis mu mbab tabac yi parce que tey xam nga toon trop mu ne ma damal amal nga bëri di nga ut loo am xam nga moo tax kon ba tey yaa ngi kër Tafa Gueye waaw ah. boobu suma kër la xam nga ka ko léegi këram jox la fa nekk mhm. xam nga di yow ndoog ay doomam mhm. dafa ndoog lépp ku amoo fayam sa papa la esenk paran ñoo xamul kër ma nekk suma papa am na ay kër suma fay am na ay kër mhm. mais ku la jël hébergé ne kii ñàkkul ñu ko dundal kooku amoo fayam ak su ma ngay seen baax su ma yaay jaraaf yàlla ko yàlla